Rewmi 24 TV. waaw yéen a ko gis euh, mbokk yi mu mel ne euh, Macky Sall daal dinay rek close euh, débat ci Amadou Ba mu mel ne candidat moom waxu ca yeeyu ca yàbbiwu ca mu mel ne kon seen diggante. melul comme bu roog ma ngay ñagas ndax kat ñoom ñaar fi mu toll nii bokkuñu jëmuwaay mu mel ne rek message bi nga xamante ne euh, Macky Sall def na ko wax ba pare rek ca tuddul ki nga xamante ne rek moom mooy candidat bi nga xamante ne moom moo ko samp muy Amadou Ba mu doon loo xamante ne ñu bari xel daal di nay tey ci lan moo tax waxul ci waxu Amadou Ba bëggul ko ko ca laaj mu doon loo xamante ne ñu bari ña ngay am rek ñaaw gu njort di ñoom ñaar kon. neexawuñu benn yoon ginnaaw ba nga xamante ne rek moom mii di Amadou Ba jël na yoonu boppam waaye kii di mag Macky Sall it mu ngi wéy di euh, des ci njiitum réew mi bopp réew mi ba tey kon daal fii ñu wax ak yéen nii moom ginnaaw ba nga xamante ne rek def na message am ba pare euh, la ca doy waar mooy euh, tuddul Amadou Ba taasu ko waxul buggul ko ci laaj mu doon loo xamante ne daal dinay ëlëm bopp ñu bari